waaw euh, maître Abdoulaye Tine yow yaay avocat wu Alkali Cissé mi nga xam ne dañ ko denc ca Arabie Saoudite bi mu fa nekkee ba léegi pratiquement mat na at gannaaw bi mu defee lu mat ñaari at ci Maroc Alkali Wow, fu mu toll tey waaw euh, Alkali Cissé fu mu toll tey xanaa ci feebar bu metti feebar bu moo ko tëral Arabie Saoudite comme ni nga ko waxee Euh, ñetti at a ngi nii mu bàyyiku Sénégal euh, déjà ñaari at avant Maroc lañ ko jàppoon 2012 ba mu demee Maroc lan boo ko fa yóbbu woon dafa amoon rendez médical rendez médical boobu moo nekkoon pour nemmeeku maanaam fan la yaramam tolloon donc boobu ba léegi ñu ngi ko téye. donc Maroc téye nañ ko fa ñaari at wante ñu ko téye Arabie Saoudite bientôt le 24 septembre bi ci lay def at muy ñetti at actuellement nag euh, danaka ba mu yexé Arabie Saoudite ba légui euh, garab yi nga xamné moy traitement mom mom la doon jël bo ba léegi mënatu ci jot lolu aggraver situation. xamal nga nit ni ce euh, client li gën a aggravé situation moy réewam melni Sénégal taxaw ko benn yoon ci ci fitna bi mu nekkee. waaw mënuñu wax ne réewam taxawuko ko benn yoon. parce que consulat bu Sénégal bu nekk Jidda euh, def na ay action maanaam jéemoon na yónni ay nit ñu jéemoon nemmeeku nan la toogee jéemoon nañ ko taxawal ci njëlbeen taxawawu ci mu am ay avocat saoudien yi nga xam ne ñoo waroon a assister monsieur Cissé ñu ngi fàttaliku ni sax président Macky Sall nous mu demee foofu defoon na déclaration waxoon nañ ci presse bi que am na ay gestes yu mu defoon wante taxawaay bi dama foog euh, tëru tëralul nous ko ci nu mu war a euh, parce que tout simplement euh, monsieur Cissé 2010 euh, jugement ou cour d'appel daf ko relaxé Madame, dañu ne fait yi nga xam manam moom lañ ko tout mal amul donc bu un jugement bi nga xamné ne relaxé yoon ci pour bi mayul kenn nga jël nit pour même fait euh dañu japp ni ba mu déjà Maroc waru Arabie Saoudite dañu ne moy illégalité bu deuxième illégalité bi moom non seulement bagn koo Arabie Saoudite ba légui ben yon lañ ko présenter magistrat li ci gën a nak nag moom ñi nga xamné ñoko ñoo ko légui tuumaal léegi amatuñu sax ay nouvelles wante yàqalul né Arabie Saoudite ba légui ñu ko jàpp téye ko ci prison bi ndépp yaramam wërgu yaramam compatibleul manam andul ak tej prison ku melni ni Alkali Cissé ci situation bu mu nek tay ken waru ko woon ci lieu détention suñu tenko ci li nga wax njëkkoon nañ ko àtte euh, Sénégal xamal ni luñ ko topé dafu ci dara tay buñ ko topaté encore ci euh, euh, ci touma ci même touma yi daf mel ni tey dañu bi nga xam la Sénégal justice au Sénégal dadi di euh, rendre. waaw lecture boobu am situation parce que dama foog ni affaire bi dépassé euh, valeur ou jugement au Sénégal moom la ñu neenal maanaam jàpp ne tekkiwul poids dama jàpp ni nak bu amé pays bi nga xamné attitude bu mel non la am donc foule état mom moy nga né man mes jugements dañu am valeur té nu ko yoon tëralee moom mooy bu ben joxee jugement amul ben sañ-sañ bu la war may nga jëlaat kooku di juger question souveraineté internationale mën nga Japonie, Senegal, Sénégal Arabie Saoudite ay dëkk yi nga xamné dañu xarito wante xarito yàqalul ñu wax dëgg dëgg bi mom moy man duma nangu ngay tutil sama jugement wu dëkk parce que dama jàpp ni te amna ay antécédents yi nga xamné ñokoy firnal jugement bi bu jóge won France wala États-Unis duñu ko fa téye naan dañ koy jema euh juger lolou du buñu topé ci say ci say cadeau dafa melni tay tey euh, alkaali Cissé dañ ko tié tié bi nga xamné mom la tuba di waxé détention arbitraire moy danc bo xamné ne ko fenn hmm. yow mi nga xamné yow yaay avocat té nek euh, fi Paris lan moy sa taxaway tay naka ngeen bëgg fassiyéné taxaw pour euh, alkaali waaw nuñ koy taxawé comme ni ko waxé ñun ay avocat lañ avant tout donc taxaway bi moy taxaway yu yoon c'est-à-dire faire ba akam ak ay femme nous respecté ko bu ci semaine prochaine dinañ adressé demande officielle procureur pour alerter situation officiellement ci fait yi nga xamné ne xam na monsieur Sénégal pour les mêmes faits de kenn juger nit ñaari yoon pour les mêmes faits parce que lolo sax Sénégal Waruko ko Waruko waru parce que moom mooy maanaam Soube, ëllëg ak si soit soo différent bu le opposé ak étranger Pour la juger Sénégal bu dee jugement bi joxuko ko comme nous ko don laajee bu ko nexé meun na la indil ay yeneen problème ci feneen donc lolu meunuñu ko seetaan donc dinañ won procureur effectivement que té buñ ko fa té tëralul ko ci yoon parce que yoon mayu la nga juger nit ñaar pour les mêmes faits Ben, ñaareel bi mom moy dinañu adresser Nations Unies groupe de travail détention arbitraire parce que catégorie détention arbitraire la li nga xamné Sissé le monsieur Cissé di dund actuellement Arabie Saoudite Madame, buñ le téyee

ba ci Afrique saa yu waxee ñu ngi denc ay sénégalais ci ay kaso ci dencin boo xam ne teguñu ko fenn ñu ngi rey ay doomu Sénégal fu ñu toll ñu ngi rapatrier ay doomu Sénégal tey gis nañu ci gannaaw pratiquement autorités yi gannaaw euh, wax waxu politique defuñu ay yëfu concret yoo xam dañuy maanaam li tubaab di wax acte de souveraineté fëgg ci table bi ne leen ñii samay doom la ñu taxaw leen taxawaay bu mat waaw xam nga ku ci nekk moom euh, nu la sa dëkk di taxawoo noonu lañ lay xoolee gis nañ saa yu ne su dara jotee benn ressortissant français Sénégal wala beneen dëkk wala États-Unis ñoom tout de suite duñu xaar sax que dëkk ba affaire bi amee ñuy ubbi enquête ñoom dañuy jël seen responsabilité ubbi seeni enquête sénégalais fu mu nekk ci àdduna bu ko dara jotee Sénégal suñu procureur bu ko neexee mën na ubbi enquête suivre ak ay naataangoom xool fan la enquête bi di dem bu amé ay téx téx wala ñu jëm ko faté ñu relancer ko manam taxaway bu mel noonu wala nga am problème ak justice wala ak police ñu lay taxawoo nonu la ñu lay jappé donc dama foog ni question wu image la question wu respectabilité la que comme ni nga ko waxee chaque fois dañuy dégg ay jéey nga xam ne day dal suñuy bokk sénégalais wanté souvent autorité yi fait annonce la def dañuy def déclaration parce que mu ngi jàll ci presse bi wanté buñ ko déggatul ci presse bi rek ñu wéy ci yenen lolu nak moy fragiliser situation bi nga xamné sénégalais mom la ñuy euh manam des fois sax xamné ay dëkk yi nga xamné dañuy japp né sénégalais même boko défé dara du mujj fenn donc yu mel noonu nak moy état bi dafa war a jël responsabilité am euh, lu ci sénégalais effectivement def na tort waxuñu Sénégal mu ñëw di protéger ñi nga dañu def tort violer obligation parce que sénégalais sénégalais dafa wara am lu pour état ak pour autorité étatique. est-ce que ci walum droit le droit gis ki nga mën na daal di ëlbatiku euh, topp yoonam ci euh, ñàkk jàppale wala ñàkk taxaw biñ ko taxaw waaw loolu yoon maye na ko xam nga droit ñaari fànn la mën nga attaquer nit wala état parce que dafa def dara wala nga attaquer état parce que lu mu waroon def defu ko dafa bokk ci obligation wu état que yo ce ressortissant beaucoup demander demandé ne ko dama am teq-teq ngir yalla ñëwal taxawuma dañu wara répondre ci sa appel waruñu noppi bu dee dañu noppi parce que réel politique la wala leneen la donc suba effectivement meun nga japp ni ñom buñ la taxawoo won nuñ la waron taxawoo li nga mujj dund do ko dund donc bu la neexee effectivement donc mën a engagé effectivement responsabilité wu état. adduna bi jaxasoo tay lan moy waral taxawayu doomu Sénégal ci ci ci fan la meuna wara meuna yakar walu gannaaw fépp a waaw fépp a c'est vrai wante daa am ay ak ak yelef doomu adama yi nga xam ne eh, fépp foo mën taxaw daf lay protéger parce que nit nga avant ngay nek sénégalais donc ay droits de l'homme euh loolu nak comme ni ko waxé Nations Unies taxaw nañ ci xeex nañ racisme bi gis nga ko bu euh bo di compté bi amoon Europe ak amerika Amérique ak yeneen i dëkk boo xoolee léegi wàññeeku na parce que la plupart euh, états yi obligé nañ leen ñu incriminer fait raciste yi jour raciste si allié yooyu ci sen code pénal que même boudé ñi ngay rombanteel neexoo leen xalaatatuñu ñoo daan ñu lay saga wala ñu yëkkati lolu ay avancé la donc wante après effectivement amna ay

Euh, fléau et je pense que mobilisation bi société civile ONG de défense des droits de l'homme mais qui mouvement aussi euh, état autorité étatique parce que finalement nous avons un état que euh, te dinañ ci taxaw comme nuñ ko war taxawoo peut-être loolu nous pousser eh, état yi nga xam ne nous la loolu di am ñu enquêter de manière convenable et efficace et peut-être bu réprimer nu ñu war a réprimer euh, maanaam dissuader euh, ci avenir bi euh, réitération ou fait yu mel waaw Rimura boobu nga waa nga daanale moom laay tëjee waxtaan wi gis nañu euh, lu mat ñeent ci sunuy mbokk daan nañu faat seen bakkan ci taal boo xam ne ab nit moo ko taal ndax bañ nit ku ñuul comme ni ñu ko waxee barki démb Aminata Dia di doomu Sénégal rey nañ ko fii ñu sànni ko ci géej gi te gisuñu nii euh, bu ñuy wax réciprocité xool nañu Sénégal pratiquement euh, euh, semaine bi ñu génn benn avion daanoon na ñu wax ne benn française a ci biir automatiquement parquet wu Paris dafa di constituer wu jóg ah, yónnee ay enquêteur ak ay magistrat pour ñu xool lan la lan kañ la ñu mën a ñun suñu lu Sénégal suba bu doomam amee problème dëkk yu mel France wala feneen mu daal di envoyé ay magistrat ak ay enquêteur ñu daal di xool lan moo xew. waaw loolu moom question volonté politique la parce que compétence yi. Sénégal am na ko man mi di wax ak yow nek barreau de Paris Cheikh Anta Diop la jangé ba am sama maîtrise am naa fa sama yenen natango nga xamné ne ñoo ngi ñoo jàngandoo léegi ay procure la la ñu xam nañu yoon euh, mën nañu am nañ police bu efficace bu mën investiguer bi nga xamné ne mën nañu demander ay commission rogatoire Maintenant même bu dé fay France la amé euh, né police parce que entre France ak Sénégal am nañ convention judiciaire ni lañu bëgg ngeen sayto mbirmi jox leen tel élément question volonté politique c'est-à-dire qu'il autorité que eh, def ko une priorité ci action que fépp fu euh, dara mos a jot mën euh, sénégalais muy mu wala ñu ko wala ñu toroxal ko euh, dinañ enquête parce que yoon même les amewul Sénégal du moment où victime bi nationalité sénégalaise lañ ñu jël seen responsabilité attitude bi nga wax sank ci autorité française par rapport à accident d'avion bu am Dakar loolu mom lañuy xaar pour état bu nek nga xamné en tout cas que donc mu ngi joué rôle am wara def ci mbépp mbir mu mel noonu. jërëjëf maître Abdoulaye Wa waaw maa ngi lay sant di la gërëm.